Chers clients, c'est Merco Immo, votre expert immobilier. waaw ñun la Merco Immo entreprise bi ñu ràññee te wóolu lool ci njaayam suuf. vous propose des terrains de mètres carrés. waaw dëgg la dañuy jaay ay terrains de 180 mètres carrés. a des prix abordables avec des modalités de paiement flexibles et échelonnées. njëg bu xéwalee ak payoor bu taw féexe lool. tout cela entre kilomètre cinquante et Pout. ci njëg bu amul fenn 4 millions 500 kese nga am sa terrain ci lu wóor. dans un cadre stratégique et accessible. ci barab bu jàppandi. à 5 minutes de la gare de Terre à 15 minutes de Diamniadio. digganteem ak aéroport nekk si fukki simili dong. fay bi nag moo gën a neexati. da ngay joxe 500000 francs li des nga fay ko ci diiru 36 mois maanaam ñetti at. nag cher client sunu sama ko gën gaaw seeti Merco-Imo mu baaxee la ay terrain ci kóolute ak kaaraange. Chez Merco-Imo, nous privilégions la sécurité, la confiance et la satisfaction de nos clients. produit aloe vera kenn dootu ko laam-laamee li muy faj traitement yu baax ci wér-gu-yaram soo ko bëggee da ngay utiliser suñuy produit am na fi ay traitement atroce moo xam da nga am yax yuy metti wala nga amee damm-damm am na fi tamit gel ay complément pour yow mi am diabète wala asthme bëgg def traitement noonu lañ fi amee tamit gel sibéra ak ay complement pour ñiy def traitement hémorroïde moo xam bi nëbb wala bu feeñ wala nga amee tension wala sax ndoxu siti utiliser ma gel sibéra ak ay complément naka noonu yow mi bëgg a def traitement atroce yax yuy metti digg ginnaaw kiy metti metti utiliser ma gel fidrom ak ay compléments doo ko rëccu benn yoon lépp ay produit aloe la li ci gën a neex nag moo di am nañ fi body mission di def traitement perte poids yow mi bëgg a wàññi sa graisse am forme bu rafet dindi acide bi nekk ci sa biir yaram te xoolal suñuy produit sans effet secondaire la xoola ma may master gold bi daf lay yokk waxte wàccee sa coono may la énergie may la ca cawaxte am nañ fi tamit élésir ñu koy booleeg may master force bi pour gën la may doole yow mi nekk ci sa néegu sëy te xoolal dafay fajaale juróomi jàngoro ci sa biir yaram yi am nañ ci bu góor ak bu jigéen te gis nga dafay maye karaw may la ongle même yow mi am fibrome def la ciy dimbale ba ci yow mi am jafe-jafe am doom su suñuy produit daal lépp ànd ak qualité sans effet secondaire airbox bi nag pour yow mi am lakk-lakk la wala sax nga am infection même hémorroïde sax boo ko yoree rawatina hémorroïde externe da nga ko ciy diw rek gis nga ne lii te li ci gën a neex nag bot yi yéen ñi am cancer du sein appétit B wala problème mu rein wala ay réew sonoon la lool indi nañu leen sibérab yi ak ay composition ak gel l'entreprise LR en Allemagne c'est des produits 100 pour cent compléments alimentaires yow mi bëgg a def say commande nekkee ci Sénégal woowal Abdou Sarr ci 76 251 40 06 yow mi nekk ci Espagne woowal Soxna Awa Thioub numéro téléphone am di plus 34 722 524 767 ak gel mission soo bëggee ay produits yu baax 100 pour cent aloe vera sans effet secondaire gaawal gaaw nga contacter ñu livraison bi c'est disponible partout au Sénégal et en Espagne cher GTD yu Dakar Buzz TV dal leen euh, jàmm dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé ko ci du quotidien mi dellusiwaat ci résultat provisoire élection législative yi yéenekaay bi dañu xamal ni commission de recensement des votes na commencé na fi toll nii dajale résultat yi ci département yi waaye amul benn département boo xamante ne ni Pastef bàyyee na ko lépp la mujjee xuuf yéenekaay bi dañu xamal ne tête de liste bu Pastef Ousmane Sonko a bëri na ci ay jafe-jafe yéeni bi ne li ko indi mooy ndox mu bari mi nga xamante na ci nawet bi la wax fi mu toll nii yàqu na yéeni kaay bi ne ci doonu Dagana rek juróom-ñeenti fukki hectares ak ñeent la yàqoo wax dafa mujjee woon a inondé yéeni kaay bi ne baykat yi dañuy mujjee perte ci doon leb ci alal dugal ko ci mbay mu ren ji lépp mujjee na xasaay conséquences yi mu commencé am nag yéeni kaay bi def na ci taxaw seetlu ne il faut que état bu gi dugal ci loxoom ba tey yéeni yéenekaay bi des ci wàllu football ak démb match Sénégal Burundi bi nga xam ne gagné nañ ko ci doublé bu Habib Diarra moom ndaw li nga xamante ne ni Sénégalais yi bëgg nañ ci moom lool yéenekaay bi def na taxaw seetlu ci moom muy yëkkati nag laa am ci équipe nationale bu Sénégal te bu ma sañoon ni ndam li amee tey noonu lay amee ëllëg yéenekaay bi def taxaw seetlu suñu coach bu bees bii di Pape Thiaw ñeenti match yi mu def gagné ko ba noppi équipe bi dugal ci juróom-ñetti but lépp yéenekaay bi def na ki taxaw seetlu di xamle ne bu dee Habib Diarra moom ñetti but dugalu gum na ko nag ci équipe nationale bu Sénégal l'observateur Sénégal gi ak Pape Thiaw mi nga xam ne sénégalais yi bu fekkee ne ñenn ñi d'accord nañu pour ñu yóbbu ko ci Coupe d'Afrique 2025 am na ci ñoo xam ne jàpp nañ ne dafa war a jouer waat yeneen i match ay match yu rëy ngir ñu mën a xam est-ce que ci dëgg-dëgg àttan na équipe nationale bu Sénégal gii ngir mën ko yóbbu Coupe d'Afrique yéenekaay bi ne en ay buntam mu ngi bëgg a leer match yi mu coaché gum moom Pape Thiaw yépp daf koo mujjee am ndam est-ce na nag pour ni ñoo koy xaar ci premier ministre Ousmane mu déposé lépp luy am amam ca OFNAC fi mu toll nii na kuréel ga génne nañu ab communiqué bi leeral lan moo tax defuñu publication officielle ci patrimoine Ousmane Sonko mii di premier ministre ci wàllu politique yéenekaay bi dañu xamal ni en tout cas waa PDS moom saa yu élection jotee ci dernière minute yi ñu génnee maître Abdoulaye Wade fësal ay image ba tax na yéenekaay bi def ci taxaw seetlu ne mbir yi bu fekkee stratégie la est jarul ñu xoolaat ko moom m Abdoulaye Wade mi nga xamante ni yi ñu jéem jubluwuñ ci lenn dul joxe rek influence ci vote bii est jamono ji jarati na ko surtout ci mag moo xamante nii fi mu nii âgé na lépp yéenekaay bi dellusiwaat na ci tey xam le ne fi mu toll nii nag maître Abdoulaye Wade yaramam sax daf ko mayeetul nag muy génnati te mooy yéenekaay nekk génn kay ba ñëpp xam ne génn na ci élection législative yii mooy njiital Pastef Ousmane Sonko liste yi mu jàkkaarloo woon ci élection législative yii ñoom ñëpp la mujjee daaneel rawatina ci ndakaaru njaay lim leen rawee sax dafa bëri lool yéenekaay bi ne Pastef moo jiitu ci ndakaaru ak sàmm sa kàddu moo ci topp waaye yeggul sax 100000 voix yi mi ngi ci voix ka ca toppaat moo di takk wàllu Sénégal bu Macky Sall amul sax voix mu ngi ci 9 288 voix lii tax yéenekaay bi ne bu ñu nekkoon ci élection locale yii Pastef nangu na ville de Dakar jébbal ko Abbas Fall tan ak fi mu toll nii lii xeeñ neexagul laa la wax ci Barthélémy Diaz ndax bu ñuy xool ci résultat yi amagum ci département bu Dakar jegewul sax 100 000 voix te Pastef dépassé na 200 000 voix yi même ca diwaanu foofu tamit yéenekaay bi xamal nañu ne Pastef jiitu na fa coalition bu sàmm sa kàddu li mu ko rawee sax dafa bari Moon Ndiaye Cissé bu ONG 3D moom moo nekkoon tête a di xam ne ci biir yéenekaay bi ne en tout cas man sama gis-gis moo di Ousmane Sonko amul dara lu muy defi gën ak ca assemblée gannaaw ba li mu doon xëccu am na ko te mooy majorité absolue maanaam opposition bi mënuñoo am sax la laa la wax groupe parlementaire bu mën baare lépp lu ñu bëgg doxal nag ca assemblée kon Ousmane Sonko defatul dara ca assemblée ba na ku mu wóolu mu def ko muy président assemblée nationale moom mu continuer di doxal nag ca primature yemu ca ndaxte moom mu njaay Cissé mu ngi xam la ci biir yéenekaay bi ne dualité bii ñuy wax nag ci gouvernement bi ci diggante premier ministre ak président de la république man jàpp naa ne confiance doo nga fa a possible yéenekaay bi ne même bu fekkee ne maire yooyu liggéey nañ ci seen dëkk ba seeni gox waroon a am contentement nag jàppale leen ci élection législative yi ñoom ñëpp dañ leen mujjee gañe nag ci seeni commune bokk na ci Barthélémy Dias bi nga xamante ni ak réalisation yi mu def ci Dakar yépp teewul dafa perte Dakar Bamba Fall ak réalisation yépp teewul dafa perte Médina ba ci Mamadou Moustapha Sow mook Cheikh Issa Sall ci diwaanu Mbour Babacar Mbengue ak Mbéréem ñoom ñëpp seeni réalisation teewul tam Ousmane Sonko gañe na leen lii di nekk avertissement ne bu nekkoon élection locale dañuy perte seeni gox donte liggéey nag liggéey bu fës nag fi mu toll ci seen i commune askan bi dañ leen wan ginnaaw dem votel ji Ousmane Sonko risque yi nekk ci seen kanam nag yéenekaay bi xamal nañu ne mooy rek perte élection locale yi ñu jëm yéenekaay bi def taxaw seetlu ci kaawu Farba Ngom Oumar Sarr ba ci Maguette Sène ñoom ñi daal ñoom ñoo résister ci seen i gox Ousmane Sonko mujj leen a gañe nag ci seen i commune waaye kii di Mame Boye Diao yéenekaay bi xamal nañu ne mook Saliou Samb liggéey nañ liggéey bu rëy nag ci résultat ni Pastef am na ko surtout nag ci diwaanu ak Mbour moom Mame Boye Diao dugal na ci loxoom loxo ci biir résultat Pastef yii la tribune yéeni moom des taxaw seetlu ci quinzième législature bi nga xam ne fi mu toll ñépp a ngi toog di xaar résultat officiel yi société civile bi na kenn ku ci nekk yaa ngi yëkkati sa kàddu di wax sa xalaat ci président assemblée nationale kan la war doon waaye Birahim Seck moom li mu jàpp ba jàpp moo di président assemblée nationale bi ñu fay xaar mooy koo xamante nii day incarner image du Sénégal rawatina yi nga xamante ni président de la république législative yi nga xam ne am na ci ay candidat yoo xam ne waxuma la sax campagne ñu waaye dañoo sax votewul dikkuñu Sénégal di voté si te ñooñu du kenn ku dul Macky Sall ak Karim Wade amul benn effort bu ñu def laa wax pour ñëw ci Sénégal gii wax ma laak nag di campagne et pourtant ay tête de lañu gisoo leen fenn fu ñu dooleelee seen coalition di leen campagnal waxuma laak nag ñu def benn geste buy wane ne ñoom ñoo ngay voté ji lii war a tax nag ñu xoolaat ñan ñoo war a nekk candidat war a sax ñuy nekk ay tête de liste ci ay coalition bu fekkee bu ñu ko nekkee duñu campagne te duñu dem voté ji transhumance politique gi rawatina ci côté Pastef yéenekaay bi def na ci taxaw na en bu ñuy seetlu résultat yi ci diwaanu Fuuta ñu fa jógee woon dem ci Pastef amul benn impact bu ñu def nag ci résultat yi maanaam teewul Pastef la mu fa doon séntu nag amu ko fa Vox Populi moom tamit def taxaw ci résultat provisoire yi ne fi mu toll xamagum nañ yenn ci ay député yoo xam ne ñoo nar a jàkkaarloo ca biir assemblée nationale ne bu ñuy xool Ousmane Sonko ca la war bokk Macky i candidat yoo xamante ni ñu dinañu dellusiwaat ci assemblée bi Cheikh Omar Anne ca la bokk Abdou Karim Sall ca la bokk Moustapha Diop ca la bokk Salimata Diop ca la bokk Thérèse Faye ca la bokk Aïssata Tall Sall ca la bokk Birima Mangara ca la bokk Thierno Alassane Sall ca la bokk ba ci ministre bii di Momar Talla Ndaw ak yeneen i yeneen i kàngam même Barthélémy Dias ak Anta Babacar Ngom Cheikh Tidiane Youm ak màgget seen mi fi nekkoon DG bu kudd ñoom i tamit bokk lañ ci ñi ñuy séntu nag ci assemblée nationale yéeni kaay bu ñuy xool na quatorzième législature bii ñu génn na ci yenn ci ay député yoo xamante ni dinañ dellusiwaat ci assemblée bokk na ci Guy Marius Sagna Farba Ngom ak Ayib Daffé waaye coow lu coow li mu ngi ci kan a nekk nag président assemblée nationale Ousmane Sonko lay man gisuma Ousmane Sonko di démissionné ci poste premier ministre naan dafay dem nekk président bu assemblée nationale li ma gis ba gis moo di li mu bëggoon fi mu toll nii am na ko mooy majorité boo xamante ne nii lu mu bëgg a jàllale mën na koo jàllale ci assemblée kon nag na xool ku yor profilu seen projet bii ñu dénk ko assemblée nationale ndax défi yi nekk nag ci suñu bakkanam dafa bari moom Moussa Diaw nag di xamle ci biir yéenekaay bi ne bés bu Ousmane Sonko jógee ko ci primature ne day dem nekk président assemblée nationale la mu mën a jur ci conséquence nag kenn xamul nu mu toll su boobaa tamit du mën a dugal loxoom nag ci doxalinu gouvernement bi ndax séparation des pouvoirs moom moo koy imposé mu yem ci doxalinu assemblée nationale moom Ousmane Sonko nag mu nekk ci côté gouvernement bi ci lay gën a mën a surveiller nag doxalinu gouvernement président assemblée bi te suñu tête de liste bii di Ousmane Sonko dina def tànneef bi gën nag pour président assemblée nationale bi yéenikaay bi def taxaw seetlu ci Tahirou Sarr mi nga xam ne fas yéene naa dugg nag ci biir assemblée nationale waa Pastef yam fay fekki nag yéenikaay bi def na ci taxaw seetlu ne boo moytuwul quinzième législature bii du am assemblée bu ko dàq ba tey yéenikaay bi des ci coow li nga xamante ni mu ngi ci biir Pastef diggante ministre Aliou Dione ak Aïda Mbodj gannaaw ci victoire bii Pastef am ca duwaanu Bambey yëf yi ay xuloo ba ci xeex ba am sax seeni oto yoo xamante ni dafa mujjee yàqu lépp nag nag mbiru fiirange kasa la fiirange politique yéenekaay bi deesuwaat ci coow lii nam fa demee dañuy xamal ni ministre bi ci boppam ak ñamu àndal ñaawlu nañu loolu comportement bu ay dëmboo kenn ci xamante ni fekkee nañ ko am ci suñu biir ndax ñoo bokk benn camp waaye heureusement ba a déposé contre Aïda Mbodj mujjee na koo retiré a ne am na ci ba kenn ci ñooñam nag fi mu toll nii dafa am gaañu-gaañu kenn ci partisan mi moom Alioune Dione di xamle ci biir yéenekaay bi ne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 diaspora sopp na bi cher client c'est Merco Immo votre expert immobilier waaw waaw ñun la Merco Immo entreprise bi ñu ràññee te wóolu lool ci njaayam suuf vous propose des terrains de mètres carrés waaw dëgg la dañuy jaay ay terrains de 180 mètres carrés à des prix abordables avec des modalités de paiement flexibles et échelonnées. njëg bu xéwalee ak payoor bu taw féexee lool. tout cela entre kilomètre cinquante et Pout. ci njëg bu amul fenn 4 millions 500 kese nga am sa terrain ci lu wóor. dans un cadre stratégique et accessible. ci barab bu jàppandi. à 5 minutes de la gare de terre à 15 minutes de Diamniadio. digganteem ak aéroport nekk si fukki simili dong. fay bi nag moo gën a neexati. da ngay joxe 500000 francs li des nga fay ko ci diiru 36 mois maanaam ñetti at. nag cher client sunu sama ko gën gaaw seeti Merco-Imo mu baaxee la ay terrain ci kóolute ak kaaraange. Chez Merco-Imo, nous privilégions la sécurité, la confiance et la satisfaction de nos clients.